ziar nañ leen yéen ñu ngi suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci seetaan bi ngeen seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc waa Gambie diaspora bi yëpp di leen nuyu bu baax di leen ziar comme ni ñu defee toujours rek tey ñu ngi waat fii Parcelles ci euh, plage bi seet si fi coach Balla Diouf borom jàmbaar Wrestling Academy ah waaw fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi combat bi ñu jógee démb diggante la dëgër Eumeu mu joxe ci Euh, di nuyu waa kat appuis yi ñëw fii vraiment di ñu fekk ci géej gi tout le temps dañuy obligé di bàyyi entraînement yi sax mun toog di waxtaan ak yéen parce que euh, déplacement bi ngeen def ñëw ba fii duñu laaj suñu xalaat dañ ci sawar waa nuyu Sénégal yëpp nuyu mbokku amateurs yi bisimilah. am na solo comme ni mu ko waxee léegi rek combat démb bi. Hmm. seetaan nga ko. waa seetaan naa combat démb bi. waaw d'abord dugg si mbëri nan nga ko gisee bi ñu dugg see seen touche ba touche ba pare. seen piste waaw démb moom ku gis euh, déjà làmb ji nu mu demee euh, dañuy njëkk a féliciter Gaston franchement ci initiative bi mu def ak organisation bi am dayo bi mu def tey dañuy wane ni Sénégal ñëpp dañoo namoon làmb lii wane na ni làmb dayo bi mu am ci réew mi lii war na ni ral làmb tey war nañ ko gën a jox akam ci Sénégal war nañ gën a mën a respecter mbër ci Sénégal parce que démb ku xool réew mi nu mu mel kenn demul kenn dikkul ñëpp na selaw toog di xaar làmb ji kon làmb am na nu mu mel ci Sénégal noonu mu mel Sénégal ñi ngi ñaan yàlla autorité yi xam ni làmb ji kat sunu yëf la ñoo ko moom ñu dooleel ko ba ba nga xam ne tey dootuñu jigaan ni leneen feneen démb nag seetaan nañ làmb ji waaw làmb ji moom ku ko xool démb sa xool dina sedd mbëri dugg si nañu tuus nañu namoon nañu tuus namm bàkk dugg si nañu tuus tuus bu neex amateurs kontaan waaye nag Euh, di féliciter encore une fois mm-hmm. Diène Kairé mm-hmm. di encourager Modou Anta en tout cas di encourager aussi ñaari mbër yi bëri grand combat mm-hmm. waaw foofu daal laay kiiwagum taaxirlu say question pour mën ci toog waaw léegi nag dañuy commencé d'abord ci combat bu ndaw bi muy Modou Anta ak Diène Kairé d'abord ñoom ñaar seen forme physique noo ko gisee ne bu ñu simee ko waaw ñoom bu ñu simee ko boo leen xoolee xam ne ñoom ñaar ñëpp liggéey nañu ku xool Modou Anta xam ne liggéey na moo daan ta forme bi mu yor démb forme athlète la indi liggéey na parce que xam na ni ki muy bëreel mbër la day bëre moo tax mu indi forme boobu pour bëre mais malheureusement euh, làmb ji may may ñu ko mu xalaat bay ba ba war a bëree parce que ki mu doon bëreel daanaka jël na disposition yëpp muy muy jën carré encore une fois di ko féliciter mu nekk xale xale bu am avenir ci làmb nekk xale boo xam ne vraiment mbëru mbëru mbëru penc la mbëru famille la mu génne Médina te Médina ku fa génnee di dem làmb euh, seen xel day dal parce que ku génne Medina rek ñor nga xomm parce que maintenant da ngay judd rek ñor jéen nag mu boole ko ci ñor mën a bëre ñeme entraînement ba pare boolewul ak dara ak wax parce que man mii di wax ak yow euh, jéen euh, mun naa premier moment yi muy yéeg diin ñoo ko doon ànd maak moom chaque fajar yàlla def na ni mu bëggal ma boppam def ma def ma peeram def ma léppam ba pare def ma idolam mu nekk suma lépp papam nekk suma xarit ñu yàgg nekkandoo ci association bi dund lu bëri jéen xam loolu ba pare xam ni ma mel ci Médina mu jox ma cër boobu du dëgg ba tax na ni dañ bokkoon salle olympique di entraîner ndoo ensemble dañ daa dem diin boobu maa ngi sama carrière li ma lay wax nii c'était en 2008 maa ngi sama carrière di entraîner nekk ci forme dañ daa dem diin dañ ma dama daa yéeg ba sonn toog moom mu continuer te boobu xale la nekk ba pare mën a bëre jéen li muy bëre sax billaay walaay bëreegu ko sax arène nañ dem ba ci kanam waneegu ko xale la nañ ko ñaanal yàlla yàlla lafal ko cat mhm. ñaanal ko yàlla carrière bi baayam séntu ci moom mhm. ah yaakaar bi bàyyam am ci moom mu mhm. bañ a tas bi jaaxi nabil Moustapha di ko félicité waat bu baax a baax a baax parce que combat bi démb moom neex na neex na neex na décortiqué parce que combat bu technique la parce que moo daante ñëw na ba ci làmb ji Euh, bari la bëggoon. mais Balla bala ñuy ñëw ci combat bi. mu doonte amateur yu bëri dañoo wax ne démb physiquement bi mu simee ko dañuy gis na pareegul daan na gën a pare que démb. waaw peut-être boo xoolee ci signature yi xool mu doonte dafa nawoon. Mhm. dafa nawoon boppam trop. dafa nawoon mën a bëreem naw équipe nationale bi mu nekkoon naw ni moom li mu mën booy bi mënu ko naw boppam. fekk ni booy bi booy bëree xale bu ndaw mu xam ne yow fi li nga def ci làmb defagu ko. ngay bëri xale bu ndaw warula gën a bëgg combat bi parce que bëri xale rek koo xam ne yaa ko may chance rek risque la mhm. Mhm. warula ci ëpp ful la mhm. tey ku xool jéen ba mu summee ko xam ne kii physiquement il a une forme olympique il a une forme il a une forme vraiment lépp ngi taxaw quoi énergie bee ngi taxaw lépp ngi taxaw moo tax jéen boo xoolee initiative yëpp moom moo ko jël parce que boo xoolee ci biir géew bi sax jéen euh, a gënoon concentré wu parce que làmb ba ci biir géew concentré da ci baax Modou Anta concentré wul manqué na concentration parce que boobu mi ngi xool biceps yi neewi na pec bi neewi na et mais champion la champion la dafa juum nag ci combat bi dafa juum di ko wax ni làmb kenn du xeep mbër surtout xale kenn du ko xeeb xale bu bëgg dara xale bu ñëw ci làmb xiif bëgg dara bëgg àgg fi mbëri àgg kenn du ko xeeb en tout cas di ko encouragé bu baax a baax di ko wax ni champion la euh, respect bu mag la ñam ci moom en plus di ñaanal yàlla nag jéen wax dëgg yàlla yàlla yàlla yàlla ful carrière am ba yaakaar bi Medina at papam at ñun ñii ñëpp am ci moom yàlla mottali ko incha allah. Modou Anta ci biir combat bi am na ñu ne xeexul bëriwul d'accord nga ci loolu. waaw Modou Anta xeexul bëriwul parce que dafa ñëw ba ci làmb ji xamul lan lay bëri xale bi parce que xam nga làmb ji dafa très technique parce que Modou Anta boo xoolee euh, waaj na xeex waaj na bëri mais ba mu ñëwee ba ci làmb ji xamul lan la ci war a njëkk def xamul dafa war a xeex. xamul ndax dafa war a bëre en plus booy bi mayu ko temps mi ngi ko sëqatal sëqatal ko sëqatal ko xam ni moo daan ta ñëw na ba ci làmb ji di bëgg a bëre défensif booy bi sëqatal ko dem jàpp ko bëreeg moom ba mu bëreeg moom donc ci biir bëre euh, booy bi indil na bëre boo xam ne moo daan ta xamu ko mhm. ñëw na indi ko jàpp ko kor ko mhm. gësam ko mhm. pompe ko ay coup pompe ko gësam ko caxabal ko moo daan te ko tuur mu kal ko mu jargandiku. Mhm. mu wéeru ko dox ak moom. Mhm. ànd ak moom donc mhm. loolooy. ban combat bi sax dafa dafa dafa technique. parce que ja jéen bi dafa ñëw paramétrer kombaa bi. Euh, paramétrer adversaire am. calculer ko ba pare def li mu bëgg a def ba pare xañ ko xañ ko mu bëre. da koo xañ mu bëre mu bëre ci kawam. donc bu ko xool combat bi démb jéen combat mbër bu mag. bëre mbër mu mag la bëre démb. ñëw jël lépp wan ko ni maay xale. maa bëgg ñëw jël lépp bëre bëre bi daan daan bi duma duma bi. Mhm. mu ne combat bu am solo combat bu neex. am na solo lool neexoon na trop. di mhm. encourager Modou Anta. c'est mhm. un très grand champion. en plus di ñaanal yàlla jéen combat bi victoire bi jikko. macha allah am na solo. waaw mais ñu jeexal benn question ci combat boobu rek Diène Kaïré instant bi yan adversaire ñoo koy ñoo nekk ci kanamam. waaw Diène Kaïré ñu mu mën a bëreel bëri nañ. adversaire am ñu mu bëri mën a bëri na. mën na bëri ama neex. ama neex euh, combat ñu Yékini Junior tey porte yooyu mën na ko mën na ko tëgg parce que Yékini Junior tey daan na Modou Anta euh, Diène Kaïré daan na Modou Anta donc yooyu yëpp ay combat yu possible la tey euh, mun naa wax ni képp ku nekk ci kanamam rek muy catégorie googu ñoom euh, ñoom Garga Mbossé ak ñoo ñëpp tey mun na war na mën a bëreek ñoom parce que dugg na fa.